merci beaucoup euh, là maintenant par le parle plus au nom du membre du commerce je parle au nom du président de club membre de la ligue professionnelle ñun ligue professionnelle réforme yi nga xam ne ni bëgg nañ ñu indi ko ci texte yi comme niñ ko digee woon ak suñu candidat le président maître Augustin Senghor bi ci jiitu mooy format bi ñuy élire président parce que jàpp nañ ne fi jamono toll mënuñu di def assemblée générale pour fal président mu jël ñaari fan loolu mooy li njëkk ñaareel ba mooy poste vice président yi bëgg nañ ko leeral de telle sorte que ne bu waree dem ba juróom-ñaar juróom-ñett mu dem ci mais kenn ku nekk am pàcc spécifique bu ñu la dénk. Mm-hmm. beneen bi bëgg nañ état bi reconnaître à travers un degré que football. métier la de telle sorte que ñi koy pratiquer au Sénégal. mën mais loolu c'est évident football métier la. Ah, on a trois minutes pour terminer ah. c'est-à-dire xam nga mooy le drame. yow xamoo ba pare. mais football football métier la xam nga xaw ma ne football métier parce que au Sénégal football du métier. c'est pas ah. reconnu comme un emploi. mais xam nga lan mooy emploi. mooy bu fekkee ne da def dara di si gagné xaalis loolu mooy. on a trois minutes pour terminer. non mais xam nga c'est malheureux c'est malheureux mais mais mais mais Ousmane il faut que Ousmane il faut que nga xam ne ni ah, Ousmane euh, Pape Pape excuse-moi Ousmane Ousmane Ousmane c'est-à-dire leen rek laa d'accord que tu fasses des Ousmane, affirmations il faut que il faut que nga xam ni que aussi euh, Pape dafay toogal le sénégalais lambda boo xamante ni c'est un amateur du football. oui moom il peut poser des questions pour ces gens qui nous regardent. non il n'a pas posé de questions. Eh, affirme dama wax dama wax dara alors on va on va terminer rapidement non Ousmane Ousmane madame là aussi je parce que posé wul question. ma tu es trop sur la défensive. je suis sur la défensive. on débat dañuy waxtaan. su affirmé nga xamal ko ah Ousmane yaa ngi woon ci comme bu am importance. cette réforme d'intégration cette réforme d'intégration il s'agit tout simplement.